salaam suñu mbokku internet Kulanjan TV dal leen ak jàmm ci seen beneen numéro ci Made in Galsen comme ni ñu koy defee saa su nekk Made in Galsen mu nekk benn émission boo xamante ne dañuy dem à la rencontre des jeune entrepreneurs tey nag ñu seet si benn ndaw boo xamante ne day yëngatu ci wàllum stylisme xanaa rek ñu bàyyi ko mu daal di nuyoo suñu mbokku internet yi laataa ñuy yaatal waxtaan bi Fatou Bintou ñu ngi lay dalal. maa ngi lay fay Amina. Euh, maa ngi leen di jaajëfal si seen teewaay di remercier euh, seen équipe bi Kulanjan TV. et man maa ngi Fatoumata Sabali euh, fondatrice de Concept Sabali donc euh, j'ai été étudiante ma lancé au milieu entrepreneuriat avant tout d'abord j'étais dans le milieu professionnel donc euh, bi ma gisee ni jamono ji dañoo toll entreprendre donc je me suis lancée dans le milieu entrepreneuriat mm-hmm. alors dans le milieu entrepreneuriat mon nga ñoo wax avant ngay def li nga xamante ne stylisme lan nga jot a def ci sa sa Mm, d'accord. Donc, après mon bac, j'ai eu mon bac euh, en 2006. Donc, mon bac, vu que j'avais une notion sur les chiffres, je fait euh, demande d'orientation pour def comptabilité. Donc, j'ai fait euh, une formation de comptabilité de deux ans. J'ai mon BTS. Donc, après mon BTS, je me suis lancée dans le milieu professionnel. Donc, j'ai j'ai fait pas mal de demandes, des stages, et j'ai été recrutée dans une entreprise ma un stage trois mois euh, j'ai été retenue par un contrat de six mois après trois mois après aussi le Covid bi Covid les choses ont commencé à tourner mal j'ai arrêté là-bas mais vu que nous avons des battantes on veut pas rester sans rien faire j'ai été secrétaire dans une entreprise suggérée par un oncle euh, j'ai resté là-bas plus de six mois mais jusqu'à présent je ne me voyais pas donc je me suis décidée pourquoi pas ne pas sortir am mindset Sénégal li mhm. pour au moins développer sa mentalité donc j'ai été au Maroc j'ai été là-bas presque deux ans mhm. donc j'ai cumulé des formations en même temps mes ligues et par la suite je me suis dit pourquoi pas ne pas revenir et implanter ma passion mhm. la passion qui est la mode voilà alors euh, mun nga vu wax historique le concept Sabali? donc concept Sabali je peux dire que c'est une entreprise familiale parce que dama juddu fekk samay parents di ko def dama juddu fekk sama papa di ko def moom si milieu mode la yàgg nekk donc ma yàgg gis muy bégal ay nit te musu kenn musul ñëw di ko poñe quoi que ni nga ma ko defaree neexuma li nga ma genre donc je me suis dit pourquoi pas man tamit du ma bokk si ñi nga xamante ne dinañ euh, participer si di bégal ay nit au milieu du mode donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas moi. Mhm. donc euh, ma mère pareillement donc elle aussi elle fait des trucs artisanaux il suffit juste de ko elle applique donc je me dis que c'est un don en fait c'est un héritage. Mhm. et je me suis dit pourquoi pas moi développer vu que j'ai passé par partout donc voilà ça a été mon initiative et mon objectif. Mhm. alors je vais expliquer ce que vous avez fait donc voilà concert Sabali pour le moment il y a tout hein. mais bi y a fës mode bi. Mm-hmm. voilà donc euh, dañuy ñaw homme femme enfant donc euh, actuellement surtout man actuellement le milieu art bi mm-hmm. vu que je fais des ensembles artistiques c'est artistique avec des tissus artistiques en plus je prône la culture africaine voilà donc euh, je me dis que made in Sénégal. Mhm. Voilà. Comme l'émission. Voilà, comme l'émission. Très bien. Donc, au euh, Made in Sénégal, en plus, avec ma nouvelle collection Baba que j'ai sortie tout récemment. Donc, euh, ma toute collection Baba. Baba veut dire papa. Donc, euh, avec cette collection, j'ai cumulé les tenues africaines avec les fils. Mhm. Voilà, pour rendre hommage à ma mère aussi. Mon et la famille pour te dire que nous sommes dañu ñaw en fait. Mhm. voilà moi voilà les sœurs les petites sœurs les frères et tout. donc avec les sacs c'est mon frère qui les fait. donc moi quand j'ai si ma un modèle boo xamante ne dama ci sentir sac mhm. quoi que sac mais ou autre c'est mon frère qui frère fait. Mhm. voilà. alors euh, en tant que jeune nga que ci milieu bi en plus nga nek euh, ndaw bo xamantene ne yow yaay defal sa bop lan nga xalat ci entrepreneuriat. Euh, comme ni ma ko dès le début entrepreneuriat dafa nek euh, milieu bo xamantene c'est pas du tout facile bien vrai je l'avoue mais c'est quelque chose lo xamantene ça te permet d'être autonome. Mhm. voilà donc ku ci mën surtout ma jamono ci ñu ñu nek xam nañu Sénégal dafa xaw metti tok di xaar liggéey wala tok di xaar ñu lay may dafa jeex.

dootoo continuer li nga xamantene mom moy ñaw bi ngay def création yi ngay def. oui comme milieu yëpp en fait il y a des obstacles il y a des conséquences il y a des avantages aussi donc pour les conséquences ni ñu ba décider que dañ ci lancer je me dis je pense que c'était pour le bon en fait. Mhm. voilà donc dañ né metti neex dañuy dem jusqu'à jusqu'au bout donc voilà quand on prend les obstacles comme des escaliers à à monter pour egg fi ñu jëm. egg fi mm. alors dañu am benn partie boo xamante ne dafa tudd parole aux jeunes. Mm. genre conseil boo xamante ne moom ngay jox jeunes yi da ngay jàkkaarloog sa caméra rek nga dénk leen ay kàddu. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà comme ni ma ko waxee rek les jeunes aujourd'hui je pense que on a dépassé ben temps boo xamante ne dañu toog di xaar. voilà te ku nekk am nga tous personnel pour maintenir y a la main dans le corps mu jëriñ la jëriñ sa réew jëriñ sa entourage. toog di xaar dafa jeex ku nekk créer ton idée en fait ku nekk am na leen lu la yàlla may boo ko développé rek mu jëriñ la donc nañ passé dans l'entrepreneuriat bu nekkee dëkk bi dafa dëgër bu ñu toog di xaar naan aw ma liggéey du ma def dara loolu dafa jeex donc ku nekk na nga génnee la yàlla may mhm. Sénégal jëm kanam ku nekk na nga génnee li la yàlla may loolu la Fatou Bintou Massaly n'est-ce pas Sabali Sabali loolu la Fatou Bintou Sabali wax ci li nga xamante ne moom mooy jeunes yi ma leen laajte rek tey en tant que jeune femme ngay def sa création comment tu fais avec tes clients est-ce que tey jii nii ñoom ñu ngi am satisfaction ci li ngay def mës nga am koo xamante amul satisfaction ci li nga xamante mu nga jaay wala euh, pour le moment maa ngi sant yàlla bu baax parce que euh, nit ñi ñu ngi may fekk ci si li ma bëgg ñu ngi ma siy jàppale aussi surtout ma sa entourage euh, bien vrai que ñëpp mënuñu bëgg li ngay def mais au moins ku bëggul li nga def dina la proposer moom li mu bëgg nga ko donc pour les personnes qui ne sont pas satisfaites ils nous nous proposent de faire leen defaral en même temps ñu disent leen wan ñun lu ñuy def pour ñu ko parce que avant tout d'abord il y a li ngay def ba pour nit ñi door ko bëgg donc nous bëgg un li def Et on espère bien que ça va plaire à tout le monde. alors tu as vu une fête Fat Bintou lan touche madame sa différence par rapport aux autres lan la. va euh, différence par rapport aux autres euh, je dirais que je ne me laisse pas faire en fait voilà donc euh, pour man su je demee ba matt rek dafa war et dama jël une initiative pour gagner li nekk suñu cœur, gagner le don ñu et voilà comme je l'ai dit tout le monde a un tous personnel en fait leur est spécialisé par rapport aux autres donc moi je suis moi en fait. <laughs> tu es toi. <laughs>

donc à chaque fois on essaie de faire quelque chose c'est opposé à ligne de créer vu que c'est la différence parce que les nga fi def loo xamante ne mais ak mais différence c'est tous les personnes sont doole et on cherche toujours à se perfectionner mhm. donc euh, on actuellement on a des commandes peut-être euh, entre les amis qui sont à l'extérieur comme Maroc fi France pareillement mhm. euh, États-Unis pareillement mais

lu may ma jox ma pour man loolu noonu dafa war a jeex te jigéen ñi ay jàmbaar lañ parce que gis nañ fi ñoo xamante ne ay mère lañ maire de famille ay ay jigéen yoo xamante ne amaguñ dara wala genre yoon ñu toog di xaar mhm. dëgg la ñu ngi gis lu nekk mais yow boo bokkee si cercle bi nga bi bi naan du ma toog di xaar rek pour man tu es déjà dans le développement mhm. et développement moo ñu tax a jóg te jamono ji dafa dañoo dañoo dépassé fi ñu toogee di xaar. di xaar toog dañoo dépassé fi ñu toog di xaar wala toog di tàllal loxo ne may ma. Mm. Fatou Bintou loolu lay dénk suñu mbokku jigéen ñi ak képp koo xamante ne da nga nekk jeune xanaa rek suñu mbokku internet Kulanjan TV ñu bàyyi ko mu daal di tàggatoo ak yéen. Fatou Bintou ngay tàggatoo. je remercie les parents tout d'abord parce que si ñoom laa roy ba tey ma nekk si yoon bi ma nekk remercier sama équipe. Bo Ndiaye Babacar Diagne ki nga xamante ne sama formateur la. Euh, di remercier euh, tout l'équipe en fait su ma limee rek damay juum donc remercier naa leen di leen remessier ñoom te di leen xamal ne yamul fii mhm. li ci des moo raw Mhm. donc euh, ñoo ngi si yoon bi. maanaam nañ la ci yeneen surprise. voilà alors euh, comme Fatou Bintou nu mu ko waxee suñu mbokku internet u Londian TV waa concept Sabel la ñu seet si woon tey pour ñi nga xamante ne dañ ko bëgg a contacter mun ngeen ko envoyer message via ses réseaux muy Facebook Instagram wala TikTok ak numéro pour ñi nga xamante ne bëgg nañ def seen ay commandes di leen jaajëfal rek di leen jox rendez bu ci beneen numéro ci Médine seen